Thank you.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 internetu 7 jëriñ Université ñu ngi lay nuyu. may lay fay jëwriñ Moustapha di nuyu seetaan 7TV yëpp te di leen di siyaar ci màggalu sëriñ tubaab bi di ñaan sunu boroom may ñu màggalu jàmm may ñu fekkee ko at yu bari barkeb Serigne Saliou ñaanal Serigne Saliou ndigal ci ñu yàgg te mu gën a wér ko ñaanal sama Serigne Serigne Saliou Seydina sama bunt ci Serigne Saliou ndigal yal na ay ndamam yokk ci barke Cheikhul Khadim di siyaar ñëpp di nuyu àdduna di nuy senegaal rawatina Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam ne mooy xalif général de Mouride di ko ñaanal mu yàgg fi te mu gën a wér ngeen ñaanal bépp purux boo xam ne rek yaa ngi ci réew Euh, mu nekk universel Basirou Ka euh, koo xam ni ku ràññeeku la si yoonub sëñ Béthio gi ndax taalibeb sëñ Béthio la waaye taalibeb Serigne Saliou ndigal la buntam nekk euh, Seydina Serigne Saliou Thioune moom suñu Serigne ñu gën koo xam si universel Basirou Ka ñuy gis jëf ju am solo yi muy jëf su màggal gi teroo waxuma la màggal sax waaye yeneen événement yi dañuy gis jëf ju am solo yi muy yi muy jëf Basirou ñu laaj la benn question diggante jëwriñ ji nga doon ak diggante ni ngay liggéey ak bi ñu gis nagu kéemaan yi nga fi indi premier safar jox ko Serigne Saliou ndigal cuun euh, jëf ju doy waar jooju nan la demee. waaw ah, loolu moom mbiru sëriñ tubaa rek la ndax ki ñu yar muy Serigne Béthio nga xam ne moo tax ñu baax moo tax ñu xam lan mooy liggéeyub Serigne Touba muy Serigne Béthio suñu sang bi kooku ku mu yar duñ la wax lu baax kenn du la ko jàngal euh, mel na ne loolee may def yépp bu ci kenn gis dara ku dul sëriñ bi sëriñ bi moom moo def lépp moom mooy lépp te loolee may def pour jàpp naa ne man defuma dara sax loolu xaajul la tax ma mën a dab mbégteb Serigne Béthio wala ak cant bu ma jëmale ci moom ci li ma def ci man waa ah, loolu moo ñu war ndax Serigne Béthio eh, li ñuy wax Serigne Béthio jógu fi ndax Serigne Béthio mbiru Serigne Touba la yor te mbiru Serigne Touba nag du luy dund ak dee mbiru Serigne Touba dafiy sax ba faw te nga gis xalifam bi Serigne Saliou Ndigal Thioune nii mu téye màggalu Serigne Touba bi nga xam ne at bu nekk tey boo demoon ci jànnatul maxwa boo boo duggee dangay yaakaar ne sëñ Béthio ngi ci biir kër gi ndax lépp a ngi dox loolu mooy wone eh, jox sa bopp Serigne Touba liggéeyal sëriñ Touba lu nit am ci la ko am loolee moo tax mbir yooyu eh, ñuy defe noonu te loolu xeeb nañ ko te fekk sunu doole foofu la yem waaye teraanga ji bu buñ ko mënta fay sax war nañoo wan sëriñ bi ne ñu ngi ci yoonu fay ko waaye sunu doole fii la toll wax dëgg yàlla. Euh, ngeen dégg lu am solo loolu mu wax ñu ñëw si màggal gi solos màggal si bas euh, nan lay màggalee bas basiiru nan lay àndeek mbokk taalibe yi euh, ndax gis nañ la ren nga ñëw fii nga xam ne mooy ñaari ñaari ñaari ñaari Baay Faal ñëw màggalee fii yàgg sa njaboot bas nan lay màggalee. waaw màggal gi moom sant nañ bu baax. depuis ñu ñëw ba léegi ñu ngi ci bernde yi tey tamit lañ ci gën a nekk def nañu ay ndekki yu am solo loolu yëpp ngir sant Serigne bi ci bés bi ndax Serigne tubaab moo woote ci bésam bi ñëpp nañ ko ci santale yàlla di ko tàmbalee ginaar ba gëlëm bu kenn bàyyi dara ci loolee lañu nekk sant nañ bu baax te ñu ngi ci te mbir mi jeexagul ñu ngi fii ba suba di sant Serigne bi ci xéwalam yim ñu defal ci teraanga yim ñu defal ñu ànd kook mbokk taalibe yi ànd kook suñu mbokk jullit yi ànd kook suñu invité yi ànd kook ñëpp loolee la ñu nekkee ñu ngi fii nga xam ne mooy eh, li ñuy wax Touba Njaareem eh, te ren fa la ñu màggalee te kenn ku ne xam na ne jannatu lañ doon gën a kii waaye mbir mi bu la Serigne Touba defalee mu gën di yokk yow fu gën a yaatu rek ngay ngay ngay dem ngir murit yi ak ñi ngay àndal ñu mën a màggali màggali màggal bu neex wax dëgg yàlla. sa digganteeg sëñ Saal ndigal waaye sa digganteeg Seydina ndax amaana eh, ñu bari dañuy dañuy dañuy laam-laamee te xamuñu te xamuñu ne loolee yëpp seen boobu benn la te sa digganteeg ñoom ñaar ñooñu nan ngay doxeek ñoom ndax dañuy gis nga jëf fii eh, valeur boo xam ni lu doy waar la waaye tamit soo demee fee lu même même noonu nga koy delloo. waaw xam nga li ñuy wax rek nit ku nekk ak ni nga xalaatee ak ni ngay gisee te ñun ay taalibe lañ man taalibe rek laa doon moom laa bëgg doon te xooluma lu dul ab taalibe te yoonu murit ni mu nekkee ñun cattaako ni mënuñu ci changé dara lu ma ne tarafatal ay ni mënuñu changé ci ci yoonu Serigne Touba bi ay ay ay ay la ñun ñëpp te nga xam ne Serigne Saliou ndigal cuun mooy Serigne Saliou Seydina ñoo bokk seen lépp Serigne Sall Seydina Serigne Saliou naa ba ma koy xam boobu yàgg na boobu Serigne bi mu ngi ci kaw suuf di ma fonk ma doon ak taalibe mu jàpp ma fonk ma di ma jàpp di ma dimbali di ma yaatal di ma dalal def ma kom ma nekk taalibeem ba sëriñ bi jóge fi ma yeesal sama diggante ak moom boobu demeewul ni mu demee may ànd ak moom bu dogal yi amee sëriñ Béthio def nii mu def xalifam bee fi nekk mooy sëriñ Saliou Ndigal ci ndax benn benn bëccëg dama toogoon ak sëriñ Saliou Seydina Cité góor Gorgui sëriñ Sall tegle di ko woo téléphone di wax soxla bu mu wax boo xaatee rek mu waat ko mu ne ma gis nga de sëñ Saal de nii sëñ Béthio àndee woon ak man noonu laay àndee ak man ndax du toog ci ay waxtu rek te gisuma day day jaaxle day bëgg ma ñëw nekk ci wetam mu ne mbooloo mii toog fii booba ñun waa sant ak jëriñ ñu ngi foofu mu ne mbooloo mi nga gis bu sëñ Saal woote woon léegi mu ne naa tas mbooloo bi ma tas ko yépp ñeen ñibbi kone ci saa si sëñ Saal Seydina wane na la ab taalibe la ñun Serigne Saliou Seydina mooy suñu bunt ci Serigne Saliou Ndigal Thioune waaye Serigne Saliou Ndigal Thioune man daf maa fonk daf ma bëgg te yàlla rek tax te fonkeel bi ma fonk yenn saay yi mu yëkkati ay kàddu ci man nga xam ne sax man defuma ko Serigne bee ma ameel cant boppam di ma sant rek ngir ma ngeen a nekk jàmbaar ndax waaw góor lu ndaw la waaye dina yokk nit mu gën a nekk jàmbaar sëñ Saal nag ci loolee la nekk ci man. lu ma xewle su ma ko woyee day ñëw lu ma xat-xat day ñëw est-ce que xam nga ne Serigne Saliou Ndigal Thioune ba mu nekkee xalifab sëñ Béthio maa ko njëkk a tàntal baas mu dugg ci loolee muy kóllëre bu am solo mu fonk ma loolu bëgg ma jàpp ma xam man may kan ànd kook rakkam bi nga xam ne saa bu waxee mu ne seen jëwriñ bi seen sëriñ bi xam na ni ñu téye Serigne Saliou Seydina waaye loolee yëpp daf ñu boole yëpp uuf ñu loolee mooy ab taalibe taalibe du lijjanti taalibe du calculer taalibe du dugg lu yoonam nekkul taalibe du arange fu mu warta arranger man li lii dëgg-dëgg taalibe bés boo ko waree cib sëriñ bés boo ko gisee sab taalibe yàqu waaw moom tax damay du ma bëgg xam fu mu nekk ci murit gi saa su ne ma bëgg kaa dab te bëgg ma bëgg ma koo gis loolee mooy dàq naa sëriñ Touba te duma ko dab waaye dina ma won fii sëriñ Touba jaar yëpp war naa mën a def lu mel noonu ngir xam ne maa ngi sant sëriñ bi ndax sëriñ bi ci lu baax rek la woote képp ku woote leneen yaa ko woote sëriñ bi ci lu baax rek la woote ci jàmm la woote ci salaam la ci bernde la woote ci bëggante la woote ci jàppante la woote ci ndimbalante la woote sëriñ Tuubaa ci la sosee màggalam bi waaye sëñ Béthio kuy wax bernde ci senegal war ngaa jàpp ne bernde yu génn ci biir kër di ko baasal di def ay ndékki di def ay ndogu loolu ku xam xam ne sëñ Béthio sumb fii te loolee mu ngi continuer jàngal na ko ay taalibeem yépp wax dëgg yàlla ci loolee la ñu nekk moo tax euh, ma ànd ak mbokk taalibe ak ñi mu àndal yépp wax dëgg yàlla ñëw màggal si ni mu ni mu demee. ñu tëjee tëjee question bi lañ ngay soññ mbokk taalibe yi nga xam ne ñooy ànd ak sëñ bi. kan la ci. mbokk taalibe yépp ca tàggoo ni ànd ak sëriñ bi. waaw comme ni ma koy waxee ab taalibe moom mooy soñ mooy soññ boppam taalibeeb sëñ Béthio foo nekk rek yaa fay sëñ Béthio yaa ko représenté boo nekkee Louga boo nekkee Kaolack boo nekkee Tivaouane Peulh yaa fay sëñ Béthio lépp loo def muy erreur rek du la baal balaa ñuy calculer kenn ak juddu ak kilo jur ak sa waajur bu jigéen ak bu góor sëñ Béthio lañ njëkk xalaat ne taalibeeb sëñ Béthio kon ëpp naa def ñuy def loo xamante ne rafetul suñu diggante ak suñuy nawle mooy suñu mbokk dëkkandoo yi suñu mbokk jullit yi ñu ñëpp nañ fonkante ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi àdduna yàggul yàgg bu tax ngay mere nit àdduna yàggul yàgg boo xam ne di nga waxal nit lu ñaaw àdduna yàggul yàgg boo xam ne di nga yéene nit lu ñaaw te loolee yëpp wax dëgg yàlla xëjul suñu diggante ndax ne ay doomu aadama lañu dañu war a bëggante te bëgg sëñ Béthio nag mbëggeel biñ ko bëggoon tey la gën a yokk ndax sëñ Béthio tey la fi gën a ne li tax ma tey la fi gën a ne wàlliwu bu wonee ginnaaw ba génn ginnaawam ci lay gën a ëpp lu muy def bi mu nekkee ci kaw suuf te yaakaar naa mbiru sëñ Béthio tey la gën a dox tey la gën a neex tey la gën a yaatu loolee yëpp nga gis ko ci ci ci ñi nga xam ne ñooy doomam yi sëñ saal yu Ndigal nekk ci bopp bi ànd kook rakkam bi waaw loolu daal maa ngi ci soññi bokk taalibe yëpp ñu xam ne ñun daal ay taalibe lañu te taalibe daa war a yaatu taalibe daa war a baax taalibe du lijjanti waaw taalibe na doon néew ak ki koy sang rek fu ñu la jëm loo nga jëm fa bés boo ko deful nag lépp loo ci def na xam ne yow yaa yow yaa yàqal sa bopp ndax mbiru sëriñ Touba bi nit de ciy soññ nit waaye koo ci soññ dañ koy dimbali rek ndax ku taxaw ñu dem wàcc la ki jébbalu tey ak ki jébbalu 50 ans ki jébbalu tey mën naa raaw ki jébbalu jébbalu 50 ans ci yoonu sëriñ Touba ndax yoonu sëriñ Touba bi jëf la du ay wax bu doon ay wax rek rek rek rek yoon bi du yegg fii ay jëf la. te ñi ñuy jiitu fii ci ay taalibe yëpp dañoo jëfoo ñu agsi fii ñun ñu war koo mottali ngallaawaay nañu xam ne suñu suñu suñu suñu mënta suñ ci mënta sant sëriñ bi ci xéewal yim ñu defal waaye nañu xam ne tamit moo ko fi indi loolu il faut ñi maase ñu nangu ko sëriñ tubaa daal amuñu payam waaye rawatina nag sama jàmbaar ji sëriñ Béthio nga xam ne ni mu mel moom ma ko def bu dul woon moom li gars yi di wax làmbaay ñaaw wala na fii nga ma fekk moon nga fi bañ barke Serigne Touba. jërëjëf euh, Basirou xam naa dañ koy bàyyi mu tàggatoo ndax xam naa ne mu ngi si ay yitte euh, Basirou lan ngay tàggatoo ak lan ngay nuyu lan ngay bëggalee tamit euh, soppe yow moom wax dëgg yàlla fu ñu la fekk teral nga ñu fu ñu mënti demit waxee nañ ko fu nekk moo xam si télé bi lañ toog moo xam suñuy mbokk defal defal nga ñu nu nekk bokk nga si ñu ñu ñi nga ñu njëkk may teene yaa ñu ko may kon loolee dañ dañ la koy sante bu baax a baax a baax lan ngay tàggatoo yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan 7 jawriñ Moustapha ma santaat la bu baax a baax ci fii nga jóge ak ni mu sore ñëw ngir jël li nga xamante ne moom moo nekk fii ci suñu dal bi di sant waa 7TV yëpp rawatina suñu jigéen Maimouna Ndour Faye nekk jigéen bu jàmbaar bu am fit bu mën a liggéey ku xam métier bi mu nekk muy muy journalisme ndax léegi ku tëb rek yi nga wax dëgg yàlla waaye nga gis moom professionnel yi muy def ak liggéey bu rafet bii ak nii mu koy doxee ñu ngi koy sant bu baax eh, di sant ñi nga àndal sa caméraman ko ziar di sant mbokku taalibe yi yëpp ñu ma àndal sant sama waajur bu jigéen ak sama waajur bu góor bi fi nekk ànd ko ñun màggal gi ak sama gan yi nga xam ñi jóge Jolof ñuy jóge Tivaouane Peulh ñi jóge beneen dëkk yu sori ñëw ànd ko ak man màggal gi maa ngi leen di sant maa ngi leen di nuy maa ngi kontaan ci ñoom bu baax di nuyu soxna yi ak sama jigéen yi wax dëgg yàlla bàyyiwuma kenn ñaan màggalub jàmm màggal ren bi bu déwénee yàlla na gën a neex yàlla na gën a yaatu yàlla na gën a yokk ndax ki ñu koy defal walaay nit a koy defal ba pare jàpp ne am na lu mu def waaye loolu yëg yëggul sëriñ Touba fenn tey jëwriñ Bassirou Ka lu mu def ci màggal bi tey boo duggee Touba am na ku jóg ku multiplier woo santen de millions te yëgul ne def na dara ndax mbiru murit noonu la def xol bu yaatu ngay am tey jëfti doo ci am xaj ak seen tey joxe ay lekk doo ci am xàjj ak seen ànd kook yar ak teggin loolu daal la ñuy tàggatoo jëwriñ Moustapha di la sant bu baax di bëgg lool yàlla nañ ko defaat déwén barki Cheikhul Khadim ñaan laa Serigne Mountakha Mbacké xalif général de Mouride di ko ñaanal mu yàgg fi te mu gën a wér ndax Serigne Mountakha ah kooku gis ci màggal gii gis taxawaay bi mu ci am gis yërmande ji mu am sëñ moom daa njaboote ñëpp Serigne Mountakha daa ñëw njaboote ñëpp fonk ñëpp bëgg ñëpp ngalawaay dañ koy sago waay dañuy sagoo sëñ Mountakha ndax day koo xam ne waa sëriñ Tuubaa rek ñu ko indil te lu jiitu mu nekk ci xilaafa bi jàngal nañu ay taalibe yu bari bari bari bari bari ñii xam-xam nañu boo xoolee ci biir bi nga xam ne sëñ Mountakha jiitu mu ñëw jàngal nañu ab taalibe ni muy mel lu jiitu mu nekk ci xilaafa bi kon nañ ko war mal waaye nañ ko fonk te buñ ko booleek dara xam ne sëñ Mountakha nit ku baax la yal na yàggal ko fi jërëjëf Euh, jërëjëf euh, universel Basirou Ka moom ngeen àndaloon muy taalib yëpp sëñ Béthio taalib yëpp sëriñ Saliou ndigal ci woon ñu ngi koy siyaare waat moom bu baax te tey rafetlu kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko fii euh, si Touba Ndiarème ñu ngi koy sant bu baax baax sama caméraman laa àndaloon mooy Souleymane Diouf ñu ngi koy siyaare moom bu baax di siyaare waar yi ak képp koo xam ne mi ngi safoo 7TV si kanam tuuti incha allah rabbi di dem jëlil waat leen yeneen réaction incha allah rabbi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa